Ablaye Wade ku ne xam histoire Ablaye Wade ak dal le département de Mbacké wa Touba nak ay gor lañu wa Mbacké ay nit ñu reconnaissant lañu wa foog nañu ne à chaque instant war ñu sargal Ablaye Wade Cheikh Abdou Bal lang ci coalition bobu nek député à l'Assemblée nationale. lamu def nag keroog assemblée taxaw difa saga ndey mom rek moko ñimé ñemee ñun duñ ko def ndax ñun bu ñuy wax dañuy séddu wa Touba Touba gi ñu bokk alors ku taxaw assemblée nationale di taxar ay saga ñu wax nga da ngaa soxla département Mbacké mais kooku nu mu mën a jot département Mbacké département bi conseil départemental nit ku yiw lañ koy jox nit ku civilisé lañ koy jox nit ku respecté doomu aadama yi donc damay wax ne ku taxaw assemblée di saga, mënoo diriger conseil départemental kër sax mënoo koo diriger. APR tampi ay wax la rek c'est des gens yoo xam ne dañoo frustré wu rek bëgg lu ñu kii nangam ak nangam Macky Sall du genre boobu Macky Sall kenn ko chantage APR tampi ñi ngeen di ñokkal ñun ñun xamuñu leen ñun gisoo génn kilifa gu tekki APR ku tekki dara ci APR daan tax APR tam amu fi ñi koy wax rek ay ay agitateurs professionnels lañu qu'ils veut maintenant des des des des des des des positions des des des positionnements dans le parti qui essaient de mettre en place ces mouvements fantômes pour exister mais cela en fait ne me dérange pas. xam nga nguur gi yàlla rek moo koy daaneel nguur gi yàlla moo koy daaneel Macky Sall su ma day nous avons goré, France Nous mu candidature Macky ici au Sénégal mais Sénégal Sénégal est un pays souverain donc France nous avons notre indépendance politique la qui est la lan Je l'ai Sonko c'est un gosse extrêmement génial bari nay pexe mi ngi li mu waral def c'est ça la vocation loolu opposition noonu la war a taxawee mais nag ñun yooyu xamaluñu yooyu tiitaluñu ñu ngi liggéey Sénégal Mbacké ngi def des résultats ci plan yëpp nag wér-gu-yaram école ba euh, tali yi bi donc ñun gàcce ngalaama wax ju ñaaw nag jëmut fañ ko wax far fañ foog ne fa la jëm fa mu jóge rek la ci sànnoo ñun duñu saaga duñu xeex ñu ruube ñun li ñu ñor rek mooy Sénégal ñu ngi liggéeyal Sénégal te bu soobee yàlla le moment venu dinañ xam ne ñu ngi liggéeyal Sénégal.